alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi ginnaaw bi sant yàlla subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi am mbégte ak contenté ci ñëwaat ak yéen ci daara ji téré alquranul karim téré bi nga xamanteni ni ak njub la hudan téré bi nga xamanteni ni moy téré bi yàlla wax ni bu ngeen ci jappé daf leen di jëme aljana inna hadha alqurana yahdi lillati hi aqwam téré bi nga xamanteni ni même sar wi ñu nekk ni diko jàng muy suratul naxli يالله فاي وخ تي ساروي وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون يالله سبحانه وتعالى نينا بوكو لي تي خيوي لي مانن ديفال يين خيتو يونتي بي صلى الله عليه وسلم ما جوخ لين تيرب القران الكريم تيري يالله بي كوكو جيل ديف خاريت الك ديغا راو ديغا ام بايور ديغا ام اي نغنيل يو داك با فاو waaye nag ku seeti la neen daa torox te kenn du la naw mooy alquranul karim yàlla tudde na ko shifa tudde na hudan tudde na ko nuur tudde na ko sax ruux wa kadalika awxayna ilayka ruuxan min amrina ca commencement saar ba ata amrullahi fala tastajilu subhanahu wa taala amma yashikun yunazzilu almalaikata birruuxi yàlla nee na maa jibril jox ko alquranul karim yunazzilu almalaikata birruuxi min amrihi ala man yashaau min ibadihi ngir ñu xamal ñu ni yàlla subhanahu wa taala kenn suñu waxtaan wi weesu maa ngi woon ak yéen ci gaa yu rëy yi gaa yi nga xamante ne nii boo leen waaree ba pare dañuy rëy dañ la dimbaliñu mënoo ñoo waar dañoo sonn ci waaraate bi yéen ustaas yu noppalu leen mënoo leen a changer àdduna bi allahu akbar yàlla commencé duggub ak ñun nag ci gaa yu rëy yooyee yan la ñuy wax mbokk yi waa Màkka ñoom dem nañ ba xam ne yonent bii daa neex làmmiñ ci mu ñu ko waxee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te fenn dafa neexoon làmmiñ yenenti bi sallallahu alayhi ku mu daan toogal bu la jàppee ba bàyyi la force da ngay tuub ba mu des koo xamante ne nii dafa rëy ki rëy moom yonent bi mënul woon ci moom dara mbokk yi yonent bi turam daa jékki-jékki commencé siiw mu gi nit ñi di jóge fu nekk. di ñëw di laajte waaw Muhammad mi ngeen di wax moom anamu waa Makka xam nañ Muhammad ku mu jàngal alquranul karim bu benn toq rëy nekkul ci sa xol li nga tuub nu waa Makka def waa Makka daal dañoo am fulla yi jël ay nit délégué leen tas leen ci mbeddi Makka yi fepp fu ñu yaakaar ni nit ku dëkkul ci dëkk bi mën na faa jaar dugg ci dëkk bi ñu daal di ko fay teg pour lan bu fekke yonent bi moko fa indi ñu wàññi yak xelam niko jarul nga koy parce que Muhammad mi ngeen di deg nonu dafa dem mokkal ay waxi jambur ay njibarkat la jël seeni wax moom la jël diko waxat muy neex soko deglu rek man nga ko top amna buñu dewe sax ba wax wa dekk bi wa makka dem nañ ba mu jaxale ci yonent bi daldi wo ndaw ñi ni len bu Muhammad di jàngate alxuraan bu len ko deglu waxuma la bu len ko deglu de ñëw leen ba fi muy jàng alxuraan ngeen koy yuuxu naan ko buy wax ngeen naan ko bu leen ko nangoo déglu wa qaalu laa tasma'u li hadha alqur'ani wal xaw fii fiihi loolu mooy lan mooy buy jàngati alxuraan di leen ko yuuxoo naan ko wuu wuu bu ko defee du ngeen dégg aaya yi ndax su ngeen ko déggee rek xay am kon mbokk yi yàlla subhanahu wa taala fii ñu ngi commencé tey ci suratul naxli def ñu ci nettali nag waa màkka yenn wax yuñ daan wax ci alquranul karim mbokk yi yàlla subhanahu wa taala nee na wa ida qiila lahum maada anzala rabbukum qaalu asaatiru l awalin allahu akbar yàlla nee na waa màkka bu ñu daan tasante kenn ci ku dëkkul màkka mu ñëw di leen laaj ci muhammad waaw seen yonent boobu lan la yor dañ nan ko ah asaatiirul awwalin ay léeba ki léppoon ay wax yu ñàkk fulla la yor ay wax yu foo yooy nee na daal daa yor benn téere bu tudd alxuraan te du dëgg dafa dem jàng ko ci ay nit daal di ñëw di ñu ci nax wa ida qiila lahum maada anzala rabbukum qaalu asaatiirul awwalin yàlla ni leen wax baax na nekk leen ci rek ba dee na xam ni ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون الله يا رب سبحانه وتعالى نينا نيوم يفر يدون ديف لولو دي نان غادو سين بكار واي غا ياغا خامتيني نيو نيوون با فوفو نياكو فولا توبو نيو ديلو وات دغلو دغلو لين ري با دغو نيو ميت غم لين يفر واخ ولا صاح دغو نيو Mouhamed wax ak ñoom ñu gën a jox nopp yéefar yi ba tax tuubu ñu dugg ci islam yàlla nee na ñoom bu yowal xiyaamee dañ leen jox seen bàkkaar ku ci nekk ak say bàkkaar amul kenn kuy gàddul kenn bàkkaaram li yaxmilu awsaarahum kaamilatan yawal qiyaama wa min awsaari alladina yudillunahum bi gayri ilm waaye gis nga ñoom ñee leen réeral nag ñi la réeral dinañu gàdduwaale bàkkaaru ñooñee ñu réeral waaw ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون يا الله سبحانه وتعالى نانا نياونا بنا يسنا نيون يفري لولو نيون دف وايت من كذلك ني دغون با بار توبو ني دغون في الاسلام لن دف نياونا مبوكي غيغا غاي ري بولن واري با بار لان لا واخ اساتير الاولين ديمبلي ني ليغا في واخ دولو بيس ديمبلي ني ñun suñuy maam lañ gëm suñuy bàyyi lañu gëm masalan ko gis mu lay wax lool amatul preuve amul preuve bu mëna tonto tontoo lan lay wax yow mag ñi ngay xex masalan wala yow maam ñi ngay xex wala mbir sanga maam yi ñoko fi bàyyi wa mag ñi mëna ñoo nekk ay maga maga maga mag bëgg na mag bi sallallahu alayhi wasallam senegal nañ yow suñu xel yi nañ ko utiliser waye yalla subhanahu wa taala waccuna ak ñun parce que nettaleen ci alcorane ci foo xamante ne nii yéefar yi faran jaaroon waaye tey boo moytuwul dina am ñoo xamante ni ci la ñuy jaar mooy bu leen waxee dëgguñ ko dëgg yàlla subhanahu wa taala la di wax ni qad makara alladina min qablihim fa ata allahu bunyaanahum min alqawaacidi fa xarra alayhim alsaqfu min fawqihim wa ataahum alazabu min xaytu laa yashurun allahu akbar fii ci àdduna yàlla nee na yéen waa màkka yéen a ngi pexeel yonent bi saa salaam pour faat ko yéen a ngi pexeel alquranul karim pour suul ko juum ngeen am na ñu leen jiitu woon ëppoon leen doole ëppoon leeni pexe te faat naa leen man yàlla bàyyi naa leen ñu def lañuy def ba pare ba yaakaar ni ñoo ca nekk ma dikke leen fu ñu yaakaarul fa ñu toogoon di réunion laay daaneel bâtiment ba seen kaw waxin la de du ab bâtiment bu daanu seen kaw waaye daf laa bëgg a wax ni la la ñu ràbboo lépp daanu war na seen kaw ana firawna newul woon xale bu juddu nekku góor ñu rey ko kan moo ko labal Muusa te moo ne moo yar Muusa te mu ngi doon rey ay xale di ren di liir yi moom firawna yàlla jërul liir indil ko ko ba ci biir paleem mu yar ko xale ba màgg ñëw mu dàq ko pour fat ko mu daal defar far lab moom firawna makar makara alladina min qablihim فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون يا الله سبحانه وتعالى نينا مبغل مدكلن فنكو فوق ولوان والله العظيم مثال نتي فرعون موسى رك لا كوي جيل الفرعون يا كارول وون تي ادنا ني لير بيغا خامتيني ني موم لا يار تي بير كرم تا نياتا لير لا راي مي خول لير بيكو ورا دانيل يايام ديف جي بيني mu daw ci dex gi ba Firawna jël ko soxnaam ni ko nañ ko adopté daf ko suñu doom mu accepté mu jóge muy fay yaayam mu koy nampal mu yor ak dundam ba mu màgg ci pale bi ndekete kooku moo koy faat yàlla subhanahu wa taala waxoon nag yéefari màkka de waaye yéen lay waxal instant bii nii yéen ñiy xeex islaam yéen ñiy xeex muhammad sallallahu alayhi wa sallam yéen ñiy xeex daara yi yéen ñiy xeex alquranul karim yéen ñi nga xamante ni yéenay xeex seen population fexewoo leen seenu dund nu mu neexe fexewoo leen dund gi nu mu yombe bu alal génnee ngeen sàcc def seeni compte sàcc ay suuf sàcc ay terrain lu nekk ngeen dugg ci yàlla subhanahu wa taala nee na yéen a ngi pexe rek waaye dinaa leen dikkal te bis bu ma leen dikkalee ngeen xam ni dëgg la bis bu ma leen dikkalee la ngeen ràbboon lépp ay yàqu da ngay gis ku yëg nekk ci pouvoir bi di teg ay pexe pour dem troisième mandat ولا كاتريام ماندا بودي امنا سي ام ريو ياغي دغ الله اكبر يا الله سبحانه وتعالى نينا تي بخي ياغي ديف تي بير بخي يا لا لي فيك دا دي لي دانيل دا دي لي دانيل قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم ها أه؟ واي لي تي غنا ييمي موم موي لان واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون يا الله سبحانه وتعالى نينا سوما ني مبوغال su may yàq say dil yi nga tegoon fi ma lay dikkee doo ko xalaat doo ko xalaat moo tax yàlla si émission ba lay weesu yàlla doon wax naan wallahu ya'lamu maa yusirruuna wa maa yu'linuun xam naa li ngeen nëbb xam naa li feeñ kon mbokk yi nañu gën a góorgóorlu ci jaamu yàlla subhanahu wa taala nañ xam ni islam muy diine dëgg saa yoo ko pexeelee yow yaay daanu waaye islaam moom mooy am ndam mbokk yi gaa yi àdduna yi fii ñoom ñooy wax naan ay alquran asaatirul awwalin ay léeba gi léppoon la ñoom ñooy ñi nga xamante ne bu yemal qiyaamee dinañ gàddu seen i bàkkaar waaye ñooñu tamit yàlla subhanahu wa taala nettali na alquran ci biir alquran bu ñu ñëwee yemal qiyaam naka lañ fay nekkee te moom mooy aay bi ci topp summa yemal qiyaamati yuxzihim wa yaqulu ayna shurakaai alladina kuntum tushaquuna fihim mbokk yi nañ teg foofu suñu baaram ci aaye boobu la ñuy démarrer ak yéen ci suñu waxtaan wii di ñëw insha allahu tabaraka wa taala mooy gaa yi nekkoon fii ci àdduna réyoon gaa yi nekkoon fii ci àdduna daan def lu leen neex daan wax lu leen neex bu yowmal qiyaamee lan la ñuy daj foofa loolu la yàlla di nettali insha allah tabaraka wa taala ci aay yi di ñëw yàlla nañu yàlla defal dégg topp bàyyi ñu fi ba ñu fekke ko lépp lu fi jub nañ ko sant yàlla subhanahu wa taala lu fi dëng ngeen jéggal ñu ko di jaajëfal ñi ñu àndaloon ci liggéey bi ñépp waaye di jaajëfal la maison du Coran nga xamante ne nii moom moo leen di baaxee waxtaan yu am solo yi di leen firil alquranul karim di leen ko jàngal di leen ko tegal yàlla na yàlla subhanahu wa taala barkeel dundu gi di jaaf di jëfal tamit kazalika ñépp ñu ñuy topp ci fi nga xamante ni moom moo di chaîne YouTube bi wa jazakumullahu xayran wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu góorgóorlu leen ci alquran def leen ko lekk def ko naan ma nga bawoo ca asamaan jibril mu wóor mi andi ko na leen jaral sonn bu wér